cey doomu buur bu ndaw maa ngi soog a xam ndànk-ndànk sa dund bu metti bis bu nekk bi timis jotee sa foykat mooy naaj bu wàcc sa xol set dëgg naa loolu ci ñeenteel fan ci suba bi nga ma waxoon timis laa bëgga